waa KN TV salaamaaleykum Nitte TV salaamaaleykum ak kan wi nag seen émission bi ngeen doon xaar yegg na émission bi nag neewoon naa leen du yomb tey comme ni ko EFO waxee émission gindi askan wi saa su nekk dañuy xaar ki nga xamante ne ni moo ko war a animé muy kan muy Fatima Diop ak kan EFO mu nekk nag diyo bu am sol diyo bi nag niñ koy defee rek yéen a ma gën a xam.

waaw gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonente bi di sant suñuy waajur ñun ñëpp di gërëm aussi si internet yi ñi nga xam ne ñu ngi suivre ci YouTube bi ak Facebook di ñu see suivre ci suñu chaîne de télévision Nitte TV lëkkaloo ci ak KN TV te ñu ngi am mbégte contenté di recevoir une dame une dame pas comme les autres nit koo xam ne jàmbaar la fii ci Kër Massar koo xam ne da yàgg xeex ngir Kër Massar ku Kër Massar bëgg muy kan muy sama maman Penda wa il faut maman Penda ba bala ñuy bàyyi muy nuyoog askan bi euh, dañuy euh, coof rek que ni euh, wax nga ko léegi c'est une brave dame c'est une lionne donc ken du ko présenté waat fii ci Kër massa rawatina ak àdduna wërngal képp parce que ko xam Penda ba yaakaar xam ko ci gayné ku ko xam-xam ko ci vraiment une dame de fer jamono yi nga xamante jamono yi ci bagn kat ya moy jamono yi mam Ablaye Wade mu nekk ko xamné ragné won nañ ko lool ci langue politique bi nga xamné moy PDS Dan nou kay bay rek moun ade miyo manet ginde askan wi, euh, mi Kikil masal negisi an fas farmati logon KM TV, Nite TV Yay bo nye le bay moun miyo, salam alekou Osu genay moun, salam alekou Mangi nou yon volo yon fotogye Miyo akil masal Moun yon salay gale Woy moun atol lo di setan KM TV Ak Nite TV maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm la jox sa yéeguwaay di la ñaanal yàlla fekke ak tal may yàlla jëmale kanam <laughs> macha allah. macha allah euh, di rappeler que ni euh, tey am nañu gan waaye nag gan gi dafa waroon langa ki nga xamante ni moom mooy. une lionne aussi koo xam ne kenn du ko présenté waat fii ci Sénégal muy la lionne Dieynaba Ndiaye euh, di koo xam ne tamit ràññee nañ ko lool ci langue politique yi parce que moom nag gis ngeen ko mi ngi dem fu ne euh, di euh, def li nga xamante ni moom mooy liggéeyu politique ñu ne nag ba njaay mooy kan fas yéene woon nañu ànd ak moom ci émission bi waaye nag jàmm ak pexe yàlla ak dogalam am na ngant dina ñëwaat ci beneen émission. ci biir ginde askan wi euh, donc tey sama yaay Penda Ba Miniti Expo li ñuy def rek mooy euh, comme euh, nuyoo na ba noppi ñu daal di koy jox nag question bi nga xam ne yow la ñuy bàyyi rek nga daal di jàkkaarloog internet yi jàkkaarloog sama yaay Penda Ba daal koy laaj ba xam la fi nag yaay Penda Ba tey langue politique lañ la bëggoon laaj maanaam ci lan ngay yëngu ci ban côté ci politique parce que politique bëri na ay façon waaw politique bëri na façon mais kenn ku nekk ak noo koy politiquer rek parce que le mot politique dafa am dafa signifier lu bari ndax kenn ku nekk ak na lay tojee sa bopp dina xëy man fii laa nekk Kër xam na mooy politicien bu mag fii defe naa àdduna wërngal képp ku ma gis ma toog fii rek du laaj lan moo tax ma toog ndax man côté politique defe naa laa gën a mën loolu nag bu amee mu ngeen ma ci laaj rek dama xam ko man dinaa leen ko leeral lu ma ci leeru it dinaa leen xamal ne loolu leerul d' accord Aïcha lu ñu ci xam di nga ñu ko di nga ñu ko leeralal lu ñu ci xamul te di ñu ko leeralal mais yaay ñu gis ne jamono bi ngay politique euh, gënoon nañ la ràññee ci jamonoy Abdoulaye Wade jamono bi nga xam ne PDS mi ngi nekkoon PDS bu njëkk ba waaw. waaw est ce mën nga ñu wax sa sa diggante ak euh, maître Abdoulaye Wade bi nga xam ne moo fi nekkoon président de République Sénégal waaw président de la République maître Abdoulaye Wade maa ngi ko xamee woon Thiès en 74 nekk xale lool carte membre yi mu njëkk a jaay ci biir Thiès maa ko daan remplir àndoon ak benn maire présidente femme bu nekkoon foofu ba léegi tey mu nga fa ñu koy wax may mun a jaw naa ko tudd parce que sama yaay la ma àndoon ak moom booba laa àndoon ak maître Wade di politique ak moom foofu ba yàlla def yàlla may ma ma jógee Thiès ñëw Dakar am borom kër ñibbi fii bi ma ñëwee fii nag ma continuer moom di politique ak moom ba 2007 2007 laa ko laa ko doog a bàyyi 2007 bi ma bi ma ki nekkee assemblée muy 2000 jëm 2008 2007 laa ko bàyyi ci laa am biir màkk ak Macky Sall primature ci laa ko doog a bàyyi. waaw sama yaay yaa ngi naan 2007 nga ànd ak Macky bàyyi Abdoulaye Wade. lan moo la booleeg Abdoulaye Wade donte ànd ngeen ànd goo xam ne depuis 74 mu doon ànd bu yàgg nga bàyyi ko da nga ko bàyyi ndax biir màkk wala da ko bàyyi ndax dafa am lu xawoon seen diggante. amoon naa fa biir màkk injustice nag moo tax mu bàyyi ko parce que dama gisoon mu jël benn doomu aadama boo xamante ne bii yàllaa ko baaxe tegal ko boppam mu ñëw mu xool moom mu ànd ak ñeneen ay nattangoom bëgg a yàqal kooku muy le président Macky Sall ma bàyyi mais yaay est-ce que du euh, transhumance parce que fim mu toll ñu ngi wax euh, xeetu transhumance parce que bari na ci adina euh, bi léegi du ma ne sax ci langue politique mais da ngay ànd ak ki ngay àndal nga dem ba ci biir nga xamné ki kii maanaam wàllam jeex na ku ci melni jamono jamonoy Abdoulaye Wade xam nga neexoon neex go xamné comme ni ko waxé àndoon na ak mom di jaay ay carte de membre hein comme ni ko waxé mm-hmm. donc di and ak mom ci jamono jamonoy màkk gu neex ga ah mais transhumance bi bari na ba fim mu ko and ak nit rek ba xamné ki jeexal na. mu daal di jàll ca wàll ba ci def ci nekkul woon noonu. non man bi may ànd ak ma euh, Ablaye Wade dafa nekkoon ci diggu lëndëm sax daanaka boo seetloo 2007 laa la wax. Mm-hmm. la la Macky Sall joxoon ma bii màkk boobu mi ngi primature ay 2008 mu nekk assemblée. boobu Ablaye Wade moo nekk ci. boobu moo nekk ci nguur gi. léegi nag man bi ma fay jógee ay 2008 mooy jamono yu loi Sada Ndiaye. Mm-hmm. xam nga loi Sada Ndiaye ci la Macky Sall nekkoon assemblée ñu ne ko na nga fi nguur juróom weer après nga wàcc. léegi juróom-benn chaque six mois dañuy renouveler waat euh, président assemblée léegi nag bi mu jëlee foofu Macky Sall nag man laa laa xool injustice ci suur boobu ci xeex bi di Macky Sall di tëj buntam di bàyyi maa ngi maa ngi ci kaw euh, ci escalier yi ñu toog di xool keroog laa bàyyi Macky Ablaye Wade loolu du transhumance transhumance boo ko déggee mooy nga fekk parti au pouvoir nga xeeb sa parti jóge foofu dugg ci biir parti au pouvoir bi nga mel ne sa aru lay doon daal. maanaam nga bàyyi sa alal dem di dugg ci biir alalu jàmbur loolu mooy transhumance mais quant am moi la ma def loolu du transhumance politique la boo xamante ni bii ay tactique lay dawal yoo xam ne man dama ko xam dama yàgg ci euh, kaw terrain politique. nu ma pen lan mooy injustice. injustice nan nga koy mën a woowee waaw. ni ma ko mën a woowee mooy la Abdoulaye Wade defoon Macky Sall ca jamonoom. fekk ko mu muy liggéey mu woo ay nit jël doomam bëgg koo implanté ci yenn yi ñu taxaw ne ko lii sa nga nar doom du fi am. mu mu mu mu commencé di di di màpp ci ci ci nit di teg di yàqal nit ñi loolu mooy injustice te moom moo leen fa tegoon bu baaxoon du ko jëlee Macky Sall ndax lan loi bu ñuy daan wax loi Sada Ndiaye booba xam naa xale bu ndaw nga sax ndax booba loi Sada Ndiaye mënoo ko xam. d'accord mënoo ko xam. Uh-huh. waaw nga te loolu c'était en 2008. 2008 waaw uh-huh. léegi nag ci la Macky Sall tëj porte bi delloo ko ay caabeem dem yoon uh-huh. loolu mooy. moom mooy moom mooy loi Sada Ndiaye jamono yooyu la. donc Sada Ndiaye tegoon loi am. ne ko bi loi mooy jàll assemblée. ñu voté ko nag mu ne moom du nangu loolu moom président de la république Macky Sall ñun tam ay xale lañu waaye peut-être ñu ngi def ay recherche euh, boo looloo waral ah <laughs> ñu toog fi tey euh, vraiment nekk ci Nitte TV ak KMTV di waxtaan ak internet yi di waxtaan ak ñi nga xamante mooy àdduna wëndal képp mooy askan wi. Euh, bu ñu dee gindi rek yaakaar naa ne kon tey <laughs> loolu moo ñu tax a toog fii euh, yaay depuis 2008 yaa ngi wax ni euh, jamono yooyu peut-être Ablaye jël na doomam teg ko ci bopp bëgg ko maanaam bëgg ko forcer askan bi yéen ngeen bañ loolu loolu ngeen woowee injustice et pourtant Ablaye Wade mi nga xam ne moom moo nekkoon ki nga xam ne moo bëggoon injustice boobu comme ni ngeen ko waxee maanaam jël doomam teg ko moom moo ñëw jàppale Macky Sall ba mu toog tey ci réew mi mm-hmm. waaw moo ko jàppale jamono yooyu waaye du woon Macky Sall rek ko bañoon Sénégal yëpp a bañoon loolu bu fekkonte ne Macky Sall rek ko bañoon amaana kon xëñ na parole bi du benn rek lay nekk ñu jeexal ko mais du woon Macky Sall ñëpp a ko bañoon surtout ñi nga xam ne ñu ngi nekkoon PDS tet tet yu mag yi nekkoon foofu ñoo ko njëkkoon a bañ Macky Sall gënoon tuuti ñi ko

Euh, waaw maman euh, man dama lay laaj parce que euh, yaa ngi naan loi Sada Ndiaye lañ indi woon ngeen gis ni que injustice moo tax nga dellu rangé wu ci côté Macky Sall nga gis ni que nga ne ci biir say wax yaa ngi naan moo ci gënoon a nekk xale te dañ ko doon xeex yow xeex boobu taxawoon ngeen dellu rangé wu ci ci Macky Sall jàppale ko ba tey egsi fu mu egsi nii jamono di dox ndax olof dafa ne garab ci kaw lay fekkante ñu gis ni que tey élection yi passé Abdoulaye Wade boobu bu taxoon yéen ngeen rangé ci Macky Sall tey mu ngi nii ñëwaat àndaat ak Macky Sall ba fal ko yow looy jàngatee loolu en tant que euh, politicien nekk ci biir euh, ak ak ci biir terrain politique Sénégal. xam nga dëgg mooy jiitu te mooy mujj ñun boobu loolu lañu xam ndaxte Ablaye Wade tamit xam na dëgg amaana loolu da ko daboon mu ànd ñoo xamante ne nii peut-être ko ci daan dugal ba mu demee dem a dem dem ba xam ne dëgg gi fii la féete. mu ñëw rangé wu ci ginnaaw Macky Sall ndax Macky Sall ku ko xam xam ne ku nit ku gore la nit ku nangu ku mën ku mën ku xam àddina loolu la Ablaye Wade maître Ablaye Wade moom avocat la li mu xam bari na su la nee lii moom moo ñor bii day xaay bu yeboo nga witti te xam ne bii day baax moom dafa xool Macky xam ne Macky mooy ki nga xamante ni kii moom la Sénégalais yi yaakaar moo yóbbu Sénégal ak sunu Sénégal foofu kenn mënu ko faa yóbbu à part Macky sinon Macky dara du Sénégal du àgg fenn loolu moo tax mu xam loolu. xool vérifier ba xool ba xam ni euh, le président de la république Macky Sall liggéeykat la jàmbaar la moo tax mu topp. waaw yaa ngi naan Ablaye Wade dafa xool ni que Macky Sall euh, liggéeykat la jàmbaar la moo tax mu jàppale ko te bu ñu delloo tuuti ci ginnaaw histoire bu ñu delloo tuuti ci ginnaaw gis nañu que Macky Sall mii moo téye doom ab Wade ne ko ràpp tëj ko coow li bëri. intervention jigéen na fépp ci réew mi ba ci kilifa diine ji topp topp topp moom mu téye xale bi jékki-jékki ñu ne Karim bàyyi nañ ko Karim jénn waxul ak kenn dugg avion am daal di dem euh, tey yow yaa ngi naan lay Wade dafa gis ni que Macky Sall moom moom liggéeykat la moo tax mu ne da koy jàppale jàppoo ni que euh, sama boppa moo ma gën a du bañ naa la waaye aussi jàppoo ni que du kaay ma ran ñëwal ci man après dinaa xool nu mu la jàppalee sax pour ma mun a delluwaat. wala sax il faut est-ce que foofu du fayantoo tamit. waaw dafa mel ne sama yaay war nañu ci. waaw war nañu ci mën a tuuti quoi mm. du fayantoo de xam nga Karim buñ ko jàppee rek c'est parce mu def parce que nag àdduna dañu ne noonu démb bu ñu bañee démb tey bu ñu nangoo rek seeni pexe juddu te Macky Sall ci boppam. Karim xam na xel ne moo jël liñ ko liñ ko ji Ablaye moo la gën a xam ne doomam moo jël liñ ko ji moom am na nu doon demee sax moom Ablaye Wade bu nekk woon suñu baay dañ ko naan rapide kas bu dëkk amaana am na lu mu yóbbu am na lu mu def mais nag ku nekk da nga koy am koo koy xoolee te di ko suturaal te yàlla tax ndax mat na bu yàlla waaye yàgg naa yàlla Ablaye Wade bu ñu doon saaga fa ñu ko faale. yaay euh, dafa mel ne jaar na fu fu fu moom ak Macky Sall. Mhm. bu ñu xoolee sax euh, ki nga xam ne mooy waajur. Mhm. bu jigéen bu mag yi euh, balaa muy génn àddina am na ay wax yu mu déggoon ki nga xamante ni moom mooy Macky. Mhm. ah donc ci Ablaye Wade donc loolu nekk na loo xam ne peut-être Macky waroon na ko xool ba tey peut-être du war a fayantoo parce que fayantu lañ ko mën a ko mën a tuddee ni ko Epo du fayantoo de. xam nga jinne dañuy confondre dëgg ak fayantoo du benn dëgg moom moom fayantoo bu la nit fëggoon nag léegi da xalaat ne yow yaa moom yaa moom doole doole ji wala yaa moom jom ji wala wala yow yaa nga xamante yow yaa yaa ko yey jarul fayantoo doole moom mën dëgg waaye yaa booy doole moom mën dëgg dëgg la ndax tey bu la nit fekkoon tey nga taxaw mu fëgg la nekk da xam nga da nga naan doole moom mën dëgg fort de loolu dëgg ci boppam boo ko xasee ba am appuyé wu ci teg sa xam ne yaa la def ak ñoom Abdoulaye Wade jaar na boor bu ne waaye xam na ne Macky ci boppam moom dëgg gi Macky du fayantoog ndax na papaam la ñun fu ñu mës taxaw ñu ne Abdoulaye Wade nangam nangam barki Nabi Moustapha ba ci man mii toog ba ma nee Macky ba ma nee Abdoulaye Wade président Macky si boppam daf ma ne mag la suturaaleen ko yéen ñëpp lu mu mën a def ak lu ngeen ko mën a xalaatal yéene lañ ko jàmm ak salaam ndax ku baax la te Macky da koo yéene jàmm lu baax la ko yéene bu doon sagoom Ablaye Wade lu baax lay am jàmm rek lay am. bala ñu ñëw ci élection présidentielle bi sax yaay dëgg la Ablaye Wade ndeysaan yàlla ko yàlla may jàmm may ko mboolem mu jullit parce que jàmm rek moo xaj Sénégal te suñu Sénégal jàmm la ñuy ñaan ndax tey gindi askan bi lañu ne ànd ak askan wi ànd ak Nitte TV ànd ak KM TV. yéen ñi ñu seetaan yéen mën ngeen a am ci Facebook bi ah. ni ñu koy waxee live and direct. donc am ko aussi ci YouTube bi comme euh, ni ko Efo waxee ak Fatima nee naa leen tey du yomb jàkkaarloo ak suñu yaay euh, ki nga xam ne moom mooy Penda Ba Penda Ba nag kenn du ko kenn du ko nattable maanaam ci langue politique gi kenn du ko lamlaane ci liggéeyam ci Kër Massar kenn du ko lamlaane ci. Euh, politique yi nga xam ne ci lay yëngu rawatina fii ci Kër Massar dinañ ci ñëw parce que Kër Massar nag xam ngeen ne fi mu toll nii dafa am fu ñu jëm da am ci lu ñu jëm donc muy lan ñu fas yéene def département dégg naa ne sax ci fort ci réew bi ñu naan élection dañ koy xaw a muy li nga xam ne muy élection wu euh, locale yi ah du noonu incha allah dañ koy puus waaye nag na ñëw fekk ñu fi te indi jàmm fekk ñu ci jàmm parce que bu ñu ko poussé tamit bu ñëwee

mu nekkoon loo xam ne stratégie yu Macky tegoon mais yaay yow mi nga xam ne yaa ngi ci Macky Sall yóbbu na la màkk yéen a ngi na di liggéey référendum bi naka la demee woon est-ce que mën nga ñu ci wax lan mooy Macky stratégie parce que parce que man euh, mënuma comprendre sama maman ne euh, Macky Sall Ablaye Wade am la papam la kon Karim rakkam la mm-hmm. muy téye Karim ne ko ràpp tëj parce que dafa am dëgg xam ko dëgg nekk ok nit ko boo demee ni nit ki bàyyiloo ko nekk sa bàyyi la euh, de mu am doom kon kooku mu nekk sa rakk tey bu ñu xoolee Macky Sall Ablaye Wade moo defar Macky Sall parce que ab Macky tey bu demee ba ñu Sénégal yi ko xam ba fal ko 2012 Ablaye Wade la parce que nommé na ko fonction bu nekk def na ko fi premier ministre def ko fi euh, président de l' assemblée nationale defoon def ko.

dama leen di wax ne toujours am na Sénégal lu mu ko xam gis nga alalu réew mi ñëpp a ko bokk te fii Sénégal bu fi laal alalu réew mi bu justice dalee sa kaw nañ xool rek bu dee yow yaa ko jël ñu ñu ñu nga fay. ñu teg la ci yoon waaw ñu teg la ci yoon nga fay rek ñu teg la ci yoon bu dee mbaa ñu teg la ci yoon bu de fay jëloo ko ñu bàyyi muy man muy Macky muy keneen fu mu mën a doon rek. mais c'est le cas de Khalifa Sall. Alors, hein. réew mi waaw ma jublu parce que tey euh, euh, Macky euh, en fait du ma ñëwaat du ma ñëwagum sax si mandat bi ñu ko bi ñu bi ñu ko fal bi ko ànd ñun ñëpp askan parce que tey moom mooy président de la république mhm. du Sénégal donc bu dee mën naa ko fal bu dee yaa ko fal bu dee fa moo fal. àdduna ñoo fal parce que ki nga xam ne moom la ñuy sànni suñu carte votal ko donc mom mo nekk ci bopp réew mais yaay efo wax nañu am solo parce que wax nañ fi fayantoo mhm. wax nañ fi li nga xamante ni moom mooy Euh, nee na bàyyam la waaye te jël na doomam jël na rakkam tëj ko mu nekk loo xam ne euh, suñ dee jàngat xëy na fayantoo la ñuy wax wala boog lu ñuy wax muy euh, jël sa rakk tey wax naa la ko ne am na ay kàddu yu ko yaayam dénkoon balaa muy waajam waajuram mu jigéen balaa muy génn àddina waaw donc kàddu yooyu ñun peut-être am nañ ci luñ ci for am na luñ ci xam même bu dara ay ñu ngi fi presse bi donc jàpp nañu ne loolu lu am la mais tey est moom dina toog ba fàttali ko yéen ñi ko jege est-ce que moom mës ngeen a toog sax ay waxtaan ci loolu. xam nga nee naa la sànq président Macky Sall dafa yaru te dafa teey te dafa ñu bëri koy di ko def moom du ko xam moom comme par exemple tey mu jël ba ñu ba xool def xool saa xam moo jël lii xam nga loolu Sénégalais yi ñoom ñoo wax ne Karim moo jël. kon nañ ko def rek àtte bu rafet boo xamante ne bii bu dee moo jël rek na delloo si xalifa bu dee moo jël yàlla moo xam bu dee jëlul yàlla moo xam mais jël lañ ko teyee le reste yaayu Macky Sall ak Ablaye Wade seen diggante diggante bu rafet la woon ba yaay Macky Sall da koy jël parfois di ko dénk Ablaye di ko wax man na gis nga su fekkee da ngaa jël sa doom dénk ma ko wax ma ci wax ju rafet man sa doom bu ma tooñee sa doom ma sa defanteeg moom dinaa xool ca yaay bi Ablaye Wade musul xool ci yaayu Macky am na wax yu yu yu Ablaye wax Macky yoo xamante ne yii bu ko Ablaye laay waxoon yu mel nan yu mel nan yaay ah mais yooyu jarul yegg jarul yegg Sénégalais yi xam na nañu xam nañ fu dëgg gi féete xam nañ fu dëgg gi féete waaye daal président de la république Macky Sall saa yoo ko waxee nga wax Ablaye Wade billaahi sama maam la suñ seen maam la lay wax yéen waaw saa waxee wax Ablaye mu ne la sama maam mu ne la sama sama man dama ne yéen ñi comme ni ñuy olof naan buur aayul hmm. mais ma dal yaa aay loolu la waaw dal yaa aay mais est ce que bu bu jotee noonu ak ak euh, Ablaye Wade ci en ci année yooyu yooyu taxul ba mu nekkee président ñi ñi ka àndoon ñu moom moom mun na am sensation balle mais est-ce que pour ko entourage bi nous ko tëj ko xolal lu la defoon xam nga la la toroxal la la def la humilier ak tous ces événements yi amoon 2007 bon mu euh, état bi génn ci dem ndëndam côté est-ce que jàpp du entourage junior war nañu parce que moom yaayu waaw yaayu match waaw yàgg na ànd ak match mhm. te yaakaar naa ne am ay entourage bi puusoo leen ko puusoo leen ko à la vengeance quoi ne ko fayee ko fayee ko donte tàgg tàgg nga ko fi nee ko nee nga ku baax la mhm. ku yërëm Ablaye Wade ku bëgg Ablaye Wade mhm. bu fekkee baax na yërëm na bëgg na ko tey mu téye doomam tëj ah te tamit te doom dafa foor ci bàyyi euh, am fu ma te ma ñëw tey di gedd parce que gedd lañ ko mën a tuddee démissionné mooy da nga sa cër du dëgg mais man du ma ànd ak nit tamit 2008 ba tey kon yaay wax na lu ci nekk waaw. wax ñu nekk mooy ma doon xëy ci kër gi fii. Hmm. ne salaamaaleykum ñëw toog fi ñii nga xam ne ñoom ma rombee gi buñ ma rombee duñ ne kaay ma def ko fi juróom benn weer après lan laa war a def bu ma xoolee xool xam ne mën ma faa nekk du ma ne mais moom moomul mairie bi moomul li nga xam ne moom lañ ko waaye fu ko dégg moom moom man tekki ma fa dara non loolu du du du wax ji. yaa yaa ya booy. yaa booy mhm. maman Penda Ba. Mhm. man na ma jàpp ni que am na yow xalaatoo amul loo xam ne def nga ko wala nga wax ko mu dégg ko mu mere la wala nga def loo xam ne daal neexu ko aussi mu mere la te aussi ci moment mere boobu nga xam ne dina dina 6 mois du la nuyu du wax ak yow est ce que yow dox nga ci ay jéego dem ci biroom nit koo xam ne yéen a xeexandoo ba dara dul dara. tamit ngeen 2008 2008 2007 sax. 2007 dafa yàgg maire dafa yàgg maire dafa yàgg xeex nag moom nee na bu ñuy bu ñuy sos APR moom ci ña jógandoor ak APR. kon moom diggante ak maire la wax 2008. waaw 2008 kon 2008 nga ànd nga ànd ak moom ngeen xeex xeex xeex ba tey moom mu nekk maire yi mu doon ki nga xam te ni nga expliqué nga nekk xam nga ko. tey bu problème bu mel noonu amee lu est-ce que ci ay jéego dugg nga ci bureau wala oo nga ko sa kër wala nga dem këram dox jël sa sa dàll dem këram laaj ko lan moo waral mu comporté wu comportement boobu. def naa ci ay jéego nag ndax dem naa ba bureau toog mu may wax naan ma après ñu def nii ñu ànd liggéey façon yooyu yeneen yi bu ma ñëwee mu daa mu ne ma. mënuma la recevoir tey waxal mu ne secrétaire wax ko mënuma ko recevoir tey. loolu dafa mel ni mooy problème am parce que. mu def ko trois fois quatre fois ma xam ne man tam kilifa laa ndax ba may am kër amul kër te moom ci boppam xam na ma maa ko daan jox dépense. yow maa la wax lii yaa doon jox ma le maire dépense. laaj ko ko honorable député maire bu Kër Massar. kon maman Ba nag.